position moom mooy rek koo xam ne opposant nga da ngay critiquer bon euh, ñoom pour opposant opposition systématique la c'est-à-dire lu jóge ci nguur gi rek baaxul xam nga kooku kenn mënu ko dégg waxuñ ne yëpp baax na quand waaye li nga xam ne Macky Sall def na ko lu ne fàng la bilan bi amul benn werante ne bilan bu baax a baax la def ba mu fi ñëwee mille neuf cent deux mille douze ak deux mille dix neuf mu sept yi ku ku dem ci Sénégal wër région yi xam ne Sénégal def na jéego bu mag. dans la bonne direction mais opposition moom loolu mooy rôle mooy opposé wu di wane ne lu ñu def baaxul lu ñu wax baaxul bon ñoom ñoom mën waaye nag li gën a am solo mooy ñu wax Sénégal yi ne ñoom suñu leen falee lii lañu war a defal Sénégal voilà wala su dee ni dañoo critiquer li nga xam ne moom la ñu def suñ ko dindee dafa am lu ñu ci teg waaye di di dox di dindi di continuer rek kooku yaakaar naa ne amul benn jë